Euh, dañu jàpp ne euh, fii ci Sénégal. Mhm. xam nga dañu am ay institutions. ñu am lu ñu tàmbali woon mu dialogue des institutions parce que dañu jàpp ne réew mi nous ñu jàpp ne le patriotisme n'a pas de couleur wala bu dee patriotisme am na couleur mooy couleur vert jaune rouge situation bi tey le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye fekk mooy ñëw am assemblée boo xam ne amul majorité le président Abdoulaye Wade fekk na ko fi ak parti socialiste te terewul dañu liggéey correctement ba ñu gisul assemblée bi ñu jotee ñu gisul ko le président Macky Sall tamit ñëw fekk fi majorité boo xam ne coalition soppi la ñu liggéey ci respect ba bi ñu waree gisul gisul. je pense que euh, doxalin boobu la ñu waroon nekk bu doon ñi nga xam ne ñoom la ñu jàkkaarloo am nañu maturité politique boobu am nañu euh, benn stature bu bu républicaine parce que tey jii règlement inter intérieur bi ñuy wax assez bien sax ngeen posé ko ay question ne fu ngeen nekkoon boobu ba tey ndax règlement intérieur bi ci la ci la Amadou Ba ñëw def déclaration de politique générale. te boobu taxawul ne ko doo ko fi defee booy côté wu ñu au contraire ils ont participé au débat ba dugal motion de censure et c'est le même règlement intérieur et c'est aussi le même règlement intérieur bu mu yor nii suba si la ñuy càmbaree de kii bi euh, dañ def débat d'orientation budgétaire le même règlement intérieur xam nga DOB bi c'est un document d'information sur les tendances financières sur les orientations bi nga xam ne ñoom tey di ñoo yor pouvoir bi et c'est encore le même règlement intérieur moom la ñu yor kon bu ñu taxawee ba tey que ne règlement intérieur bi c'est du faux kon tamit ñoom tamit dañu ma baalal ay faux lañu parce que nag ñoom kuy liggéey ci faux da nga méngóog faux bi kon moo tax je considère que ne que li ñuy wax yépp dilatoire la xam nga dafa am lu kii def premier ministre. le 16 mai dafa génn benn circulaire circulaire bi mën naa cee euh, ñëw mu leer ne dafa génn le 16 mai 2024 benn circulaire euh, mu ne objet déclaration de politique générale de monsieur le premier ministre mu invité mu ne eu égard à l'importance sa tâche wax waa je vous invite moom laay lire ni circulaire bi laay lire mu ne en vertu des dispositions de l'article 55 de la constitution le premier ministre après sa nomination mm-hmm. fait sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale c'est pas moi c'est le premier ministre Ousmane Sonko qui parle mais eu égard à l'importance qui s'attache à cet exercice républicain je vous invite à prendre les dispositions appropriées pour me faire parvenir la contribution de chaque ministère en format papier, pas papier et par voie électronique à l'adresse suivante mu jox adresse adresse bi mais au plus tard le 24 mai 2024 délai de rigueur mi ne veuillez vous veillerez à vous conformer au canevas ci annexé mi ne j'attache du prix à l'exécution diligente de la présente dont vous m'accuserez réception mu def le premier ministre loolu wees le 5 juin conseil des ministres bu 5 juin communiqué du conseil des ministres ñu wax na ñu ngi préparer lii nga xam ne mooy déclaration hmm. euh, politique générale hmm. waa entre temps lan moo changé ah, yéen la qu'est-ce qui a changé entre temps ba moo am waaw maa ngi ñëw waaw nee na il est prêt toujours avec le règlement intérieur non je ma règlement intérieur ba tey bi hmm. ñu wax lii y avait toujours le règlement intérieur non il dit aujourd'hui il dit qu'il est prêt mais dem leen régler seen problème maa ngi ñëw c'est toujours pour revenir liggéey na dafa faux te terewul depuis lors ñu ngi ciy liggéey xam nga sànq nee ngeen mosu leen voté benn loi assemblée nationale xam nga budget Sénégal moo tax moo tax moo tax see domage nga budget Sénégal dëgg la mosuñ ko voté ñoom budget moom la ñuy liggéeyee ni c'est-à-dire budget boo ko voté wul mais réew mi du dox man aji mbergaan mun na ma ne Kaolack gëm a dëkk dama am problème assainissement am problème ndox le ministre ma di gis naa ci sama programme def naa ci programme pour assainissement bi budget baa ngi mu ne votel ma ne voté wu ma c'est à quoi on a assisté cest à que ñoom ñëpp autant qu'ils sont dañuy jog taxaw wax kii na man de Ziguinchor am naa problème lii kii na man de euh, Mbirkilaan am naa problème lii mais bu ñu la voté ñu voté contre et je je je me suis toujours dit que c'était contradictoire c'est pas cohérent. mais li nga wax li xew ci diggante bi xam nga. xaw ci diggante bi. yaa ko est-ce que du motion de censure bi. ngeen tamit yéen. ni yéen a ka fay gouvernement xam nga loolu mooy fuite en avant xam nga bu dee xamagoo la fay fekk. Hmm. xam nga dans l'histoire politique du Sénégal histoire assemblée nationale c'est la première fois. Hmm. taxaw ne moom def déclaration de politique générale xam nga déclaration pour lan la pour nga wane yow wane sa feuille de nga définir les grandes orientations exposer ñu ko wax ñu quelles sont les réformes et les mesures yi nga souhaité mettre en place tey jii boo doon boo jël bus même BRT boo ciy dugg chauffeur bi dina la wax fan mooy destination finale bi di nga xam yan chemin ngay emprunté ba yegg waaye léegi nag yow ngay premier ministre du Sénégal nga ne yow doo ñëw jàkkaarloog député yi pour mën leen wax fu nga jëmale réew mi mhm. lan mooy seen programme de gouvernement kon loolu doy na waar te ñu jàpp ne le premier ministre Ousmane Sonko xam nga dañoo faral di wax man dama doon wax do man ne Ousmane Sonko dama jàppoon na ñàkkul courage ndax koo xam ne sa parcours bi nga jaar yëpp yaa ngi doon jàmbar mais on s'est je me suis rendu que xam nga lu mu ragal la confrontation il y a deux choses yu mu nanguwut la confrontation ak la contradiction parce que même bu mu nekkee député day taxaw ci euh, kii bi euh, ci euh, si président bi mu wax bu waxee day dem avant ñuy tontu donc tey bu waxee ne du ma dem jàkkaarloog député yi pour def def DPG mhm. c'est déjà un mépris à l'endroit des députés et au-delà des députés c'est un c'est un mépris à l'endroit du peuple sénégalais parce que nag ñun faluñ suñu bopp mhm. li fal président Diomaye fay ñun moo ñu fal et c'est au suffrage universel direct donc fépp foo xam ne mën na fa taxaw def DPG safewul illégitime illégalul xam nga tey jii moom dafa tàmb nee na dafay jël benn jury populaire wax ak ñoom tànn ay sénégalais yi ko neex teg leen tànn ay universitaire am tànn ay civilam teg wax dem parce que confrontation mënu ko contradiction nanguwu ko xam nga moom dafa dafa bëgg les grandes messes grandes messes yoo xam ne avec des euh, des kii déjà déjà acquis quoi muy muy euh, ñoo xam ne déjà dafa dafa dafa dafa leen kii daal dañu nekk ay nitam mooy nekk dans des grandes messes dans des endroits yoo xam ne euh, choisis donc loolu moo du dëgg du yoon tey jii nee nañ règlement intérieur bi dafa faux mais y a la constitution la constitution moo sut règlement intérieur assemblée nationale la constitution moo mag moo ëpp makkaan règlement intérieur et à son article cinq mais dafa ne c'est une obligation le premier ministre fait sa déclaration de politique générale et devant les devant les députés je pense que ne loolu tamit wax dëgg yàlla war ñu euh, xoolaat yenn taxawaay yi war nañu jàpp xam ne assemblée nationale munoo fa bugg fa def suba suba dee bee mm-hmm. te nee nga règlement bi dafa faux mm-hmm. intérieur bi mm-hmm. donc loolu moo waral ñun. buub DOB bi dina sotti nga foog. suba incha allah. Mhm. DOB bi si la ñu jëm. waaw ah. DOB bi euh, dafa am solo comme ni ma ko waxee. du kenn du voté. waaw du ñu voté sax. Mhm. document d'information la rek sur les tendances financières les orientations te nag normalement gis nga DPG moo waroon jiitu DOB. Mhm. dañu waroon def DPG. bu doon am nañu. waaw gouvernement boo xam ne xam ne lan mooy priorité. DPG moo war a jiitu. dewobee ñëw mhm. LFR ñëw mhm. parce que du ñàkk am ay ay affectation de recettes du ñàkk am ay rationalisation de dépenses et cetera et cetera mhm. tey jii nee nañ amul délai mais amul amul délai mais y une jurisprudence qui est là élection présidentielle qu'est-ce qu'on avait dit le conseil constitutionnel tenait dans les meilleurs délais dans les meilleurs délais mooy délai yi gën a xam ne bi gën a jege bi gën a raisonnable xam nga euh, dañu war xam ne fii Sénégal munoo tëb assemblée nationale ut sa parterre de de de personnes yoo xam ne yu la sympathique yu la poche. nga ne ñoom ngay waxal. déedéet parce que askan dafa am ñu ñu fal tànn leen teg leen si mooy ñun les parlementaires. jàpp naa ne nag que ne moom la président du PASTEF di premier ministre. amoon na volonté ñëw am na ñoo xam ne jàpp naa ne xëy na génn nañ ko ci li tax ñu génn ko ci xëy na ñoom ñoo am seeni raison mais moom il a été un parlementaire xam na lu ñuy préparer xam na les modalités d'organisation xam na lu ñuy defee DPG kon moom fi ay prédécesseur am jaar da cee war a jaar ñëw jàkkaarloog assemblée moo tax nag ñu ne léegi comme ñoom comme ñoom dañu bëgg indi défiance mhm. ñu lépp loo xam ne yoon tous les moyens légaux mm-hmm. ak euh, constitutionnels mm-hmm. lu ñu yoon may mais mm-hmm. ñu ko user et mieux nous avons entamé une réflexion pour daal di def benn proposition de loi boo xam ne tey kii nga xam ne tey mooy la président Bassirou Diomaye Diakhar Bassirou Diomaye Diakhar Faye du mën a tiddi si du assemblée nationale parce que ñoom défiance bi ñu oo ak du wax moo bi sax wax ñoom seen moo la. mooy jàmbarloo bi ñu bëgg ñu ñun. ñun dañoo ñëwoon civilisé. indi une opposition républicaine une opposition parlementaire républicaine indi la dialogue des institutions. ñoom ñu wan nañu ne faale wuñu ils ont du mépris pour les parlementaires que nous sommes. les parlementaires que nous sommes. sont en de travailler sur proposition de loi pour que tey benn président de la république. bu ñëwatee du mën a dissoudre assemblée nationale. et le premier ministre si l' assemblée n' xanaa duna ma day toog ba 2028 ba 2027 du ñu jàkkaarloog assemblée nationale ndax tey jii si cette proposition de loi passe il fera face à nous députés ñun lay bañ a jàkkaarlool parce que comme j'ai dit confrontation bugg ko contradiction bugg ko mhm. li mu bugg mooy être devant un public devant un jury populaire ma jaaxal même bu jàllee assemblée loi boobu ngeen di wax ko président nangu nangu ko promulguer pour mu mën a. ma ñëw ci loolu si la président de la république ne serai pas la branche ma wax la lenn si la président waaw ma wax de la république ne promulgue pas la loi. le président de l' assemblée nationale a cette prérogative de promulguer cette loi. maa la ko wax Nafi.